mbokk yi ñuy déglu 3 c'est émission la lumière du jour tey jii nii ñu directeur bu Daara FM nekk administrateur Jolof TV président conseiller de quartier fee nga Dakar euh, responsable politique APR si commune bu Daara Jolof coordinateur Jolof culture coordinateur encore mouvement ànd Dolel Bassirou attaché de cabinet du ministre de l'intérieur mom lañu ñu waxtanal tay seen émission la lumière du jour monsieur Kah nuy nañ la. Euh, Mankayre ñu ngi lay fay di la sant di la gërëm aussi ci sa teewaay fii. jërëjëf monsieur Ka euh, ba ñu limee sa li nga xam ne ndombo yi nga xam ne moom la yàlla def tey jii nii nga yor ko ak yi nga yoroon euh, maanaam mun nga ñu see ñëwalaatal tuuti rek gën ñoo fàttali li nga xam ne fàtte nañ ko si kan mooy Bassirou Ka. gannaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay nuyu di nuyu aussi képp koo xamante ne yaa ngi suivre. senvision.com à travers aussi la lumière du jour mu nek ben émission bu riche émission bo xamante ne mun wax né ñu bëri jaar nañ ci. boobu légui aussi dañoo ngi waaj pour jaar ci émission bi parce que gis nañ ni ñi apprécier nañ ko bu baax muy émission bu am qualité et ñu ngi lay encourager bu baax aussi yow mi koy animer parce que gis nañ ne vraiment euh, am nga ambition bu baax té

xam aussi euh, information yi nga xamante ne mu ngi jàll ci site bi kon ñu ngi lay sant di la gërëm ci liggéey bu am solo boobu nga xamante ni yaa ngi koy def donc di wax ne euh, basiru de benn jeune la màggee daara origine am nag carngi la parce que man ci sama wàllu papa carngi euh, la sama wàllu yaay ngolo la mais man boo xoolee daara laa yaroo parce foofu laa doon jàngee parce que dañ ma mayoon sama trondo di basiru Ba ñu bari di ko wooye chef de village ak ndab maram mooy sama mam. donc bi ma fa jógee aussi yàlla dogal na teel naa génne daara tamit def naa tamit dëkk yu bari nag yu ci bari tamit lu fa yóbbu woon mooy uti xam-xam wala alal liggéey te jàpp naa ne loolu lépp lu ma ci am tamit yóbbuwaat naa ko jolof wala lu ma ci yóbbuwul jolof tamit maa ngi préparé pour delloo ko foofu parce que jàpp naa loolu moo taxoon ma génne daara pour uti ay outils yoo xamante ne danaa ko indiwaat sama biir population pour que ñu mën ci wu te peut-être bi waxtaan bi ci kanam loolu yëpp dana feeñ incha allah. jërëgeen jëf yéen ñi ñuy bàyyi xel www.senvision.com Bachirou Ka tey moom mooy suñu gan seen émission la lumière du jour monsieur Ka bala ñuy dem fenn est-ce que mën nga ñoo waxal tuuti rek sa turandoor boobu muy bi nga xam ne tey jolof ñu bëri jooy nañ ko ay kilifa yu bëri bi mu demee ñu bëri di wax mbaaxaayam yow mi nekk turandooram mu yar la est-ce que mën nga ñu see wax tuuti rek. waaw xanaa lu ma ci gën a marqué mooy nit la woon koo xamante ku yàlla mayoon la. ku yàlla mayoon la parce que benn nit ñi daan nañu jóge fu nekk ci àdduna bi di ko seeti parce que man ci biir këram wax naa la fa laa màggee te kër gu mag la woon aussi daf ñu permettre tey ñu mën a nekk ku nekk daf ñu permettre tey tamit ñu nekk ñu am yaatu dënd parce que boo bokki ci kër goo xamante ne boo yeewoo presque ñett ba ñeent soxna ñoo nekk noo ci benn kër nga yaro ci milieu bobu nga xamante li ni ñi fu nek kër gi presque bo ñu won da ngay yaakaana sax ben événement mo xew ci biir kër gi donc ñun fofu la ñëro donc lolu moy basiru nitu nit ñi la won yalla daf ko mayon mu jubog nit ñi euh, yalla mayon ko timit mu doon mu xam-xam bo xamante li nit ñi ko ci xamé bu baax tay fo dem tay ci sous région bi lay wax sax du ma sax sénégal mais fo ci dem mu yegg na fofu té lolu nak lu ko ci lu ko ko may moy nangoo dëgg ndigal parce que moom dafa am sëriñam jëblu woon ci Ceerno Koyli te seen diggante nag euh, mag ñi wax nañ ci lu bëri donc ci tënk daal lu ma ci gën a marqué ci moom bon koo xamante ne yàlla daf ko mayoon xam-xam boobu nag presque daan nañ gis ay gan yu jóge fu nekk euh, ay Mauritanie ay Mali ay fu nekk vraiment ñëw ci kër gi foofu euh, ñëw di ko seet yi mu nekkoon tamit nit koo xamante ni nitu nit ñi la tey Jolof boo ñëwee kër gi comme ni ma ko waxee vraiment nit ñi dégg ñu jógee fu nekk ñëw fanaan ci kër gi nekk fa ay fan donc euh, vraiment loolu moom a gën a marqué ci moom nit la woon koo xamante ni yàlla def ko mayoon mu am relation bu bu ak doomu yi. monsieur Ka ñu ñëw si li nga xam moom mooy wàllu culture tey euh, si biir Jolof ñëpp nangul nañ la ko ne culture jaral na la lu nekk culture jaral na la dem fu nekk culture jaral na la maanaam euh, nga voyager fu nekk pour Jolof lan moo la dugal si culture ak lan moo tax tey jii nii ni nga téye culture euh, vraiment mu jaaxal ñu bëri. waaw ba léegi mooy damay damay permettre rek peut-être ma dellusiwaat léegi ci ci sama. parce que la foofu laa c'est-à-dire culture dafa am lu ci yow donc dama juddoo màggee ci kër goo xamante am culture la beneen bi mooy penc laa déjà baatu baat bi rek euh, ëmb na lu bëri ci culture euh, fa la ñëpp di dajaloo lu doon donc man foofu laa juddoo euh, foofu laa màggee ma ci acteurs culturels donc loolu dafa ma permettre euh, vraiment culture yi teel a dugg ci sama bopp euh, teel a nekk ci sama yaram nag euh, je me rappelle mun comme ni ma la ko waxee bi may jàngi saa bu ma demuloon école maa ngi ci daara alquran bi kër Thierno Amadou Niang foofu laa doon dem Cheikh Omar Amati Diane ñoom laa màggandoo ñoo yarandoo donc ci biir kër gi boo xoolee dañ fa amoon aussi benn groupe théâtral ci période yooyu boobu ay xale yu ndaw lañ donc suñ kenn ci ñoom tey kilifa la bu mag tey moo doon diriger groupe boobu léegi naa bañ a tudd turam mais foofu vraiment la maggee fa laa xàmmee euh, fa la ma culture dugg parce que boobu maa ngi nekk xale bokkoon ci groupe théâtral bi ñu doon ànd di animer di di di way di dem di tourner ji ay ay ay sketch yoo xamante ni ci sensibilisation la si le VIH sida le paludisme def nañ ci boobu ay xale yu ndaw lañ donc ci ci ci loolu laa màggee euh, mu permettre ma tamit euh, bi ma jógee wër euh, bokk naa ci ay structures yu mag ci wàllu culture yu ci mel ne Africulture urbaine bokk naa ci mun naa la wax ne 72 heures yi gën a mag ñu doon am dakaar fii place de l'Obélisque man bokkoon naa ci comité bi loolu def naa ci ay rôle yu am solo organiser naa aussi ay événement fu bëri fu ci mel na Richard fu ci mel na dëkk yu bëri yu ma jaar fu ma mos jaar rek presque ma ngi activité yi damay bokk laa la bëgg fu ma jaar rek damay bokk automatiquement ma ànd ak waa dëkk bi foofu ñuy liggéey di organiser événement donc mun naa ne daar laa mujjee sax jël ay initiative dafa organiser te loolu muy ngi commencé en 2005 donc en 2004 2005 laa ne nag ah lii ñuy def nii donc jot na aussi ñu delluwaat suñu dëkk vraiment ñu jéem a taxaw waa dëkk bi Euh, delloo leen aussi delloo jéem leen tamit delloo njukkal à travers aussi expérience bi nga xamante ne am nañ ko ci événement yu ñuy organiser ci àll bi yooyu tamit war nañ ko yóbbuwaat daara donc ci biir loolu comme aussi université amoon naa fa ay xarit ci mel na ñoom Samba Ka ay jeunes yoo xamante ne ñëpp Jolof lañ dëkk. ñoo taxawal benn association ñu tuddee woon ko association des jeunes patriotes di Jolof yàlla dogal ci biir association boobu ñu jël ma def ma président bi. donc 2004 euh, 2005 ba 2009 presque organisé nañ événement yu est yu mag yoo xamante ne ci wàllu culture ci wàllu sensibilisation te li ci jublu rek mooy que dëkk bi mën a bénéficier aussi ci importance de nga culture luñ ci jubloon aussi mooy fexe ba promouvoir culture jolof fexe aussi ba turu daara ak turu jolof dina mën a yegg fu sori ci monde bi monsieur ka est ce que mën nga ñëw ñëwal euh, organisation yi nga doon def foofu noonu surtout festival bi nga moom mooy euh, jolof suñu culture euh, maanaam lan lan la jëriñ population bu jolof voilà c'est important njëriñ bu bëri na trop tey parce que boo xoolee tey si biir monde bi laa bëgg expliquer bari na ñoo xamante ne ñoo gën a xam sax importance bi ak njëriñ bi euh, foofu lay njëkkee euh, doog a ñëw nag au niveau local ñëw aussi ci artistes yi tamit ak avantage bi nga xamante ne festival bi am na ko pour ñoom am na ci ay doomu jolof yoo xamante ne presque ba xoolee ñenn ñi ci yeneen dëkk lañ nekkoon ñenn ñi gabon la kenn ki gabon la nekkoon kenn ki euh, côté mauritanie la nekkoon la wax mais ñoom bu ñu mosaan a dégg daara jo ñoom presque euh, turu daara bi nit ñi dañu leen jàppe woon dañu jàppe woon daara benn dëkk bu ndaw dañu doon minimiser ci biir nit ñi yow daara bu ñu leen bëggeen xas sañu la yow jógal fi yow daara nga dëkk dañu doon minimiser parce que euh, xamuñu euh, daara xamuñu dëkk bi dañu jàppoon rek dëkk àll nii rek amul sax courant amul ndox amul dara donc bu ñu leen bëggeen xasu dañu yow daara nga dëkk mais à travers événement bi kenn ci ñoom wala ñaar ñoom la bëgg expliquer jóge nañu ñëw nañu ba Sénégal fexe ñëw ba suma kër

mooy kii njëkk ma la ko wax ne moom Gabon la nekkoon mais image yi bi mu demee 2STV euh, yi ñu seetaan ko nee na presque jot na plus de cinquante moom. dafa rus wax dafa ñemewu loon wax sax kii moom xam na ma bu baax ñemewu ko woon sax wax parce que tellement image yi ak euh, ak nit ñi fi ñu teg événement bi période boobu ne dañ ko dama ko siggil bu baax moom. Euh, presque jot na ay plus de cinquante appel ci période boobu nit ñi vraiment di ko. won seen soutien di ko félicité ci dëkk bi ak ni ñu doon foog ndekki daara demewul noonu benn beneen bi aussi mooy kii nekk mu tane aussi moom it la même chose moom it ñëw na ba suñu kër nga lislaam vraiment woon moo wax ma situation yi mu doon dund ak image yooyu aussi lan la lan la ko defal aussi lan la ko apporté foofu mooy ñaareelu bi ñetteel bi mooy euh, ñi nga xamante ne tey ñu ngi dund daara nekk ci daara tey ci biir festival bi bu jotee da ngay gis ay nit ñu jóge fu nekk ñëw ci biir daara chauffeur yi dinañ ci bénéficier wu parce que euh, am na ñoo xamante ne station dinañ ci bénéficier wu parce que bi may dem fii ñaata écrit ñoo fi jógee war a dem daara ñaata euh, ay responsable ñooy fi jógee war a dem daara pour fekkee festival bi ñun ñëpp bu ñu dem seen oto la ñuy taal. bu ñu dem danañ jënd ay carburant ci essage mu côté économique waxuma la sax jolof mais au niveau national ci côté économique réew mi lu muy dugal rek kenn mënul wax ñaata la parce que ñu dañuy jënd carburant bu weesoo ñooñu bu ñu demee ci yoon bi dañuy jënd fu ñu jaar dëkk bu ñu romb rek danañ jënd danañ jënd ay ndox danañ jënd boisson danañ jënd loolu donc ci ci loolu lépp presque day delluwaat ci xom-xomu réew mi rawatina nag euh, daara fi nga xamante ne foofu lay dëkk foofu lay événement bi di amee. Euh, beneen bi mooy les acteurs culturels. ñaata si ñoom tey nga gis euh, festival bi bu amee dañ leen di defal cachet mu seen defee seen prestation ñu si def mu defal leen enveloppe finale ba mu li ci mujj mooy bi bi mujjee barki di mu xamante ne dañu defoon benn compétition woon les 19 communes yi nekk dans le département de Linguère pour ñu compétir seen biir ci wàllu catégorie rap catégorie variété ak catégorie théâtre tey ñi gagné woon catégorie boobu ku ci nekk rek euh, décoré nañ la jox la benn enveloppe financière boo xamante ne mën la permettre tey def say. Euh, say single wala nga def say benn vidéo clip euh, loolu defal nañ et puis promotion bi tamit continuer ci rajo yi au niveau national ak ci plateau télé yi ak ci réseaux sociaux yi loolu nag ñu defal ko acteur culturel yi euh, beneen bi mooy à travers aussi festival bi gañu nañ ci benn projet boo xamante ne bi ñu boobu dañu defoon benn casting film sur l'histoire du Jolof gagné nañ fi euh, benn projet film bon avec la direction la cinématographique bo ñu préwon woon nañu pour dimbali ñu defal ñu benn film bi historique ci l'histoire di Jolof surtout ci wàllu royaume bi donc euh, boobu aussi liggéey nañ si bo mun naa ne tuuti rek moo ko tee moo teew ñu finaliser ko te loolu tamit bu bu sottee woon comme niñ ko bëggee jàpp naa ne acteurs culturels yi dinañ ci bénéficier wu mais Jolof dinañ ci bénéficier wu mais Sénégal surtout moo ciy gën a bénéficier wu. donc euh, beneen bi mooy grâce à festival Jolof suñu culture tey Jolof stade Bassirou Sidi Ndiaye am na ay projecteurs te projecteurs yooyu lan moo ko fi indi tey. Euh, ministre bi moo ñëw pour assister ci biir festival bi mu gis lëndëm bi ñuy sollicité ko pour mu euh, dimbale ñu si ay projecteur ay nit ñu fa nekkoon ñu sollicité ko loolu ci la ni nag man programme woon naa def projecteur Linguère mais comme loolu euh, danaa leen danaa ci boole daara donc loolu moo tax mu def projecteur yi daara donc festival yooyu suñu culture permettre na tey waa daara ñu am projecteur parce que ci ministre bi wax na sax directement ci rajo bi foofu ñëpp dégg ko donc beneen bi ministre bi ñëw na plusieurs fois festival bi moo koy indi mu ñëw jaar école Euh, financé fa ay xaalis bu bëri am na beneen école bu mu jaaroon benn jour mu ñëw ci festival bi foofu presque financé na leen xaalis bu bëri pour que ñu defaraat euh, école beeg yooyu donc loolu lépp mun naa la wax ne euh, ci question bi nga posé léegi pour répondre la ci ci question boobu pour wala ne festival bi njëriñu kese la pour acteur culturel, yi mais njëriñu kese la pour commune de Daara mais pour la Jolof surtout ak Sénégal monsieur Ka est-ce que des fois doo si am problème maanaam nit ñi di lay xoolee bëti li muy def nii yëpp politique la ba ñi la waroon a jàppale duñ la jàppale wala ngay am jafe-jafe ñenn ñi nga xam dañ ci waroon a teew duñ ci teew. waaw dañuy sant yàlla bu baax xam nga Sénégal moom yooyu muy man muy keneen loolu presque képp kuy organiser euh, tàmm na loolu wala yàgg na dégg lu mel noonu donc dañ ci sant yàlla bu baax rek te xam ne ñun euh, bi ñuy organiser événement yi. boobu defaguñ politique wax naa la ko sànq donc bi ñu ay 2004 2005 bi ma koy organiser boobu xaatu moo sax dinaa def politique donc depuis loolu maa ngi koy organiser pour que Jolof bénéficier wu ci ci à aussi expérience bi nga xamante ne am nañ ko ak euh, connaissance yi nga xamante ne am nañ ko depuis loolu aussi ñoo ngi koy organiser daara te defuñ politique. bon maintenant nag pour ñenn ñi danañ ko gisee ne kii day def politique wala deful politique de tax ñu ñëw wala ñu bañ a ñëw yenn responsable yi ñëw wala bañ a ñëw l' essentiel bi mooy organiser événement bi population bi mën a gis seen bopp ci li may def te loolu jàpp naa ne am na. Euh, chaque fois ba mu organiser yàlla ngi suturaal mu gën a euh, dolleeku nit ñi di gën a apprécier nit ñi di gën a ñëw donc loolu mooy l'essentiel bi pour man. monsieur Ka ñu ñëw si li nga xam moom moo nekk euh, tey am na rajo bu nekk à Daara euh, yow yaay la directeur ñu buggoon a xam rek euh, rajo bi nan la demee ak tey rajo bi fi mu toll. waaw rajo bi mooy rajo Daara FM rajo boobu jàpp naa ne demande sociale waa Daara ñoo laaj soxloon nañ rajo. après bi fa benn rajo bi am solo si nekkee mu te suñu xarit Samba Gelaajo Ba. nekk directeur bi muy rajo Ferlo FM mu doon def liggéey bu am solo gis nañ aussi eh, nit ñi soxloon nañu amaat beneen rajo ci biir commune bu Daara bu amoon nañu bëri yu commencé woon def démarche yi man mii sax bokkoon naa ñu amoon projet rajo ak samay ñaari xarit waxtaan noon naa ci sax ak Bekay Mbay parce que sama xarit la ah, pour jëlee jëloon waxoon nañ ci fréquence yi tout ça mu dimbale ma ba monté woon naa projet bi ak lépp. yàlla ci mbaaxam nag dogal le ministre Aly Ngouille Ndiaye ñi xàmmee ko bu baax ci di am ay projet yoo xamante ne day njëriñ askanu Jolof ñu ràññeeku ci bu baax ci côté boobu bi mu gisee ni doomu Jolof yi soxla nañ ko rawatina doomu daara yi mu jàppale ñu ci projet euh, rajo boobu donc euh, bi mu ko defee nag mu dënk ma ko man an ministre bi moo ma dénk rajo bi donc bi ma ko dénkeek léegi aussi jàpp naa ne maa ngi ci sant yàlla bu baax ndax euh, li ñu doon xaar ci côté résultat euh, ñu ngi si yem lu ñu man wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla bu baax d'accord par exemple dañ ne maanaam rajo bi daal euh, bu njëkk niñ gisee woon programme yeeg journal yeeg ak lépp rajo vraiment car macha allah mais tey jii nii nii fi ñu toll rajo bi dafa mel ni daal da ngeen ko fàtte non rajo bi tay la gëna dox ah loolu ñuy wax loolu day fekk ñom ci benen côté bi lañu fété rek wala duñu déglu rajo bi wala fi lañ nekk rek di dégg ci ci riir bi mais ki xam rajo digëntaan wala nekk daara di dund rajo xam nga ni dara rajo daara fem tay la gëna nekk en forme tay la rajo bi gëna dox ñun ci suñu chiffre d'affaires tay la rajo bi gëna dox euh ci côté écoute tay la rajo bi gëna dox tay lañ gëna am émetteur bu gëna sori tay lañ gëna am antenne bu gëna sori euh tey la nit ñi di gëna am di gëna a adhéré wu ci ci ci ci rajo bi donc euh, ñi wax loolu peut-être euh, duñu déglu rajo bi vraiment loolu laa jàpp ñëw euh, ma leen di fàttali tey suñu gan muy euh, Bachirou Ka moom la ñu invité mu nekk koo xam ne responsable politique la foofu si commune bu Daara nekk aussi euh, attaché cabinet ministre de l' intérieur nekk aussi directeur Daara FM dégg ngeen ko si njëlbeen fi ñu jaar mais nag monsieur Ka ñu ñëw rek si wàllu politique lan moo la dugal si politique ak li nga wax fii nii yëpp si culture ak fi ngay jaar lan moo tax tey jii nga sumb si politique. waaw man vraiment Didier politique moom nekkuloon euh, lu moom mos a xalaat ne danaa ko def ci suma adduna sérieusement bokkuloon ci suma xalaat bokkuloon ci suma ci suma ambition musuma euh, bokk suma projet vraiment. Euh, acteur de développement la acteur culturellement ci culture lañ ma xamee donc ci loolu laa doon yëngatu. wax naa la organiser naa depuis 2004 ay événements yu bëri à Daara amoon naa ay relation yu bëri ci yeneen autorités yi fa nekkoon à Daara. comme l'ancien maire bu njëkkoon a nekk muy Ali Salah suma xarit la woon euh, ñoom maire Ndati Ndiaye sara samay xarit lañu woon donc yenn autorités yi fa jaar si bëri samay xarit lañu woon daan nañu coordonné à travers ak euh, ñoom Gite Ndaw presque moom lañ njëkk a parrainé événement ci daara euh, ak ci association des jeunes patriotes du Jolof bi ma la expliqué donc daan nañ am relation ak autorités yi à travers association bobu ñu leen di parrainé ci événement yi nii mais pour def politique loolu moom mosuma ko xalaat eh, maa ngi koy commencé def nag ci Aly Ngouille Ndiaye donc ci la commencé def politique te lu tax ma dugg ci politique Aly Ngouille Ndiaye parce que def ma convaincre à travers aussi réalisation yu mag yi nga xamante ne def na ko ci dans le département Linguère te moom it daawuloon def politique c'est-à-dire man message politicien yi moom laa mun loon supporter parce que dañuy wax lii suba ñuy wax fële donc doo leen comprendre ba tellement apprécié wu ma woon politique vraiment mosuma neex parce que bëgguma woon nit kuy wax tey lii suba nga nekkaat ci leneen ak trahison bi nga xamante ne aussi am na ci diggante yi def politique war boobu man neexuma woon boo tax na bëgguma ci woon a soobu bëggoon naa garder sama relation nag ak autorité yi fa nekk mais vraiment Aly Ngouille bi mu ñëwee mu nekk aussi nit koo xamante ni discours am boo ko dégloo rek nga xam ne kii moom nit la nit ku déggu la nit la ko xamante ne aussi euh, mosul def politique te nit la ko xamante ne aussi am na vision ci département de Linguère am na patriotisme te ñun aussi loolu la ñu doon euh, combattre fexe ba vraiment euh, patriotisme boobu mu delluwaat ci xelu képp kuy doomu Jolof pour que Euh, Jolof aussi war a dépassé fi mu toll tey donc bi ñu ko gisee valeurs yëpp li ñu soxloon yëpp bi ñu ko gisee moo dajaloo ci moom moo tax automatiquement man daf maa convaincre donc ci biir membre euh, association des jeunes patriotes yooyu kenn si jeunes yi étudiants yi sax déjà moom moo ñu boole man moo tax ma xam Aly Ngouille c'est vrai xam naa ko depuis 2009 mais en 2012 ba ma décidé pour liggéey moom politiquement aussi am na ko xamante ni moom moo ci dox wax ak man pour que vraiment ma ñu soutenir ko donc bi ma xoole nag euh, li ma la wax ni réalisation yi nga xamante ne ministre bi def na ko ma déglu ay discours am euh, ma xam ne kii euh, moom la Jolof soxla vraiment leader bu mel nii nit ku mel nii aussi moom la ñu soxla ci département de Linguère boobu laa décidé pour liggéey ak moom jàppale ko ci politique bi te bi ma ko waxee tamit jàpp naa ne benn doléance donc laa laa tegoon ci kanamam bi mu ñëwee sama kër. mooy li ma yëgti mooy jàppale la boo li ngay yootu su la ko yàlla mayee nga jot ko nga liggéey jolof boo képp kuy doomu jolof mu am fierte ci yow mais nga liggéey jolof aussi ba ñun ñi ànd ak yow fu ñu taxaw ñu mën a siggi ñu bañ a rus suñu kanamu nawle yi te loolu nag tey maa ngi si sant bu baax vraiment gis naa ay réalisation yoo xamante ni sax xaaru moon sax ministre bi def na ko def ko daaloon département Linguère te tey yàlla dogal na def na ko si walu politique euh, ba léegi euh, nekkoon nga euh, conseiller aussi du quartier fofu nga xamné ne moom quartier Cëng est-ce que mën nañ nga ñëw waxal tuuti rek liggéey bi nan la doon démé ak seen rôle deug deug lan la woon. Wa conseil de quartier lu ko indi mooy fexe bo nga ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir quartier bi donc muy association yi muy GIE fa nekk donc ak personne ressource yi nekk ci biir quartier bi. donc ñoom ñooy dajaloo nekk ma waa mairie bi ñoo doon euh, présider réunion bi donc ñoom ñooy ñëw dajaloo waxtaan xool def benn bureau boo xamante ne ñoom ñooy élire seen bureau bi donc euh, bi ñu defee noonu nag ci ci quartier yi ci nga Dakar ñu ñëwoo woo ay si yëpp euh, association yi fa nekk comme ñun aussi amoon nañu association ni mu la waxee mooy association des jeunes patriotes yi Jolof ma dem représenté fa association bi ànd ak euh, benn membre donc bi ñuy demee ñu def ko kër délégué de quartier bi mooy algaw sum donc bi ñëpp ñëwee ñu toog waxtaan xool maintenant naka la ñuy defaree bureau bi yàlla dogal comme aussi man wax naa yàgg naa di di liggéey ci biir quartier bi yàgg naa aussi liggéey ci biir dëkk bi te xàmmee nañ ma fa association yi fa nekkoon ak euh, g yi fa nekkoon ak personne ressource yi fa nekk ba ma yëkkati sama loxo nekk candidat yàlla dogal ñoom ñëpp ñu jàppale ma ma nekk président conseil de quartier bu Thieng Dakar ñu defar bureau bi bi ñu defaree bureau bi aussi mairie moom moo ko validé période boobu Pape moom moo fa nekk wala maire Pape Sarr moo nekkoon euh, maire période boobu donc def nañu nag ay réunion yu bëri ak mairie bi mooy orientation budgétaire yi dañuy woo ensuite avant ñu orientation budgétaire nous avons def forum de quartier xam dañu quartier bi quartier quartier bi lan la ci électricité lan la la santé domaine bu nekk ñu quartier bi lan la fa programme d'activité après ñu programme en tant que président défendre orientation budgétaire euh, ma ñëw taxaw wax suñu quartier vraiment lii ak lii moo fa manqué lii ak lii lañ soxla donc euh, ci biir loolu tey bëri na ci projet yoo xamante ne am na suñu biir quartier bokkoon na ci projet yoo xamante ne ñoo ko doon défendre. nga euh, xamante ne loolu ñu doon défendre aussi à travers aussi forum de quartier yi nga xam ne ñoo ko doon organiser yoo xam ne ko quartier bi yëpp dañuy ñëw amoon ay commission kenn ku nekk wax quartier bi lii moo faram lii moo faram donc loolu moo nekkoon importance ba nga xamante ne conseil des quartiers yi am na ko. yàlla dogal def nañ fi suñu mandat boobu presque ci nga Dakar benn benn quartier la woon rek maintenant tey daara mu ngi dix quartiers ci nga dañ ko mujj diviser à benn côté bi mooy Cëng benn bi nekk Angle Islam bi loolu amee ñu renouveler euh, bureau bi bi ñu ko renouveler nag yàlla dogal na fekk na maa ngi ci euh, cabinet du ministre bi donc mënuma woon boole ñaari fonction yooyu ma ne ma délégué ñeneen ñi bokkoon ci membre association bi pour ñu dem représenter ma foofu ñoom ñu bokk ci bureau bu bees bi donc loolu daal mooy conseil des quartiers bu ci nga Dakar bi. d' accord sa digganteeg euh, monsieur le ministre muy Aly Ngouille euh, tey wax nga fi ngay fi nga ki leen boole ba nga yegg si bi mais bi nga si duggee ak tey jii nii est ce que mun nga ñëw ñamal tuuti rek euh, vraiment kan mooy Aly Ngouille dëgg-dëgg. waaw Aly Ngouille mooy nit koo xamante ne boo ko xamee dëgg-dëgg rek nga bëgg ko. soko ko xamee ko bëgg par force té moy nit ko xamantene aussi bo bëggee jëlof ko topp force patriotisme bi nek ci mom ak vision bi nek ci mom ak qualité bi nek ci mom bo xamé bo bëggee jëlof mëno ko bañ waaw boko jégé timit nga xam ban jaar nit la timit mëno ko bañ parce que nit ku baax la nit ku yaatu den la nit ku bëgg nit la euh, donc nit ku mel non nak boko ko euh vraiment doo def lu dul sant yàlla surtout ñun ñi ak man pendant des années mais chaque jour dama koy a naw parce que ni mu jàppee nit ñi yéene bi mu am ci jolof ak projet yu mag yi nga tout le temps mu ngi koy décroché di ko yóbbul jolof yi donc chaque jour dama koy à travers vraiment la aussi ban nit la ñu yàlla may dañu war a sant yàlla vraiment ci li ñu yàlla indil Aly Ngouille mu nekk doomu Jolof mu nekk nit koo xamante ne tey jàpp naa ne euh, fu nekk tey ci biir réew mi nit ñi suñu sañoon tey Aly Ngouille foofu lay bokk donc ñun suñu yàlla mayee tey mu bokk si ñun mu nekk doomu Jolof vraiment dañ ci gën a war sant yàlla gën ko téye bu baax parce que qualité yi ñu soxla ci leader yëpp mu ci moom da ci wàllu njàng bu dee ci wàllu jikk bu rafet bu dee ci wàllu considération ci nit bu dee ci wàllu xam-xam comme ni ma la ko waxee léegi loolu lépp yàlla def ko dajale ci moom ba pare nag mu am moyen ba pare euh, ñemee joxe parce que du ñu am ñëpp a ñeme joxe mais yàlla def ko may mu ñemee joxe tey boo ko jegee sax da ngay wax ne kii moom est-ce que tax mu ngi calculer pour subam mu ngi calculer pour demee vraiment mais noonu la ko yàlla bindee. Euh, Euh, li ci mujj rek gis ngeen barki dimb rek presque mu jël plus de 20 millions may ko étudiants yi pour seen logement yi te loolu mooy lu mu lu gën a ndaw ci loo xamante ne Aliou mu ngi koy defal doomu jolof yi wala euh, doomu aadama yi nga xamante parce que li muy def jolof noonu lay def ci yeneen dëkk yi tamit boo ko jegee fii ngay comprendre sax ci bëri yoo xamante ne nit ñi xamuñu ko mais vraiment nit la koo xamante ne doomu jorof yi war nañu gën a xam ñun ban euh, nit la ñu yàlla may ñu gën a am considération ci moom parce que souvent nit ñi euh, bëgguma ñuy am mbetteel wala di am regret ñuy regretté wu suba parce que euh, en général nit ñi duñu balaa ñu xam nit rek mu jóge fi te bëgguma vraiment loolu dal ñu si ci alin yi dama bëgg jëw mu yi ñu xam ko bu baax teeku parce que sinon suba aussi pour ñu amaat ku mel ne moom góomu ndax dina gaaw a tite vraiment ñaan nañ ko yàlla nag àll yàlla def ay alibi yu bëri bëri après ci Jolof mais nit ku mel ne moom yombul. vraiment. depuis bi euh, ministre nekkee ministre de l' intérieur ak euh, par rapport bi mu nekkee woon ministre des mines euh, ndax population bi ñu ngi doon wax ne kon Ali maanaam bu xasee ba nekk ministre de l' jolof duñ ko amati duñ ko gisati ndax day nekk loo xam ne liggéey bi du ko ko mayati ndax loolu tey jii nii nekkutoon loo xam ne aussi itam yow xawoon na la déranger tuuti yow mi nga xam yow yaay attaché cabinet maanaam bu ñuy wax loolu si wàllu politique ak wàllu lépp loo xam ne gën a jege askan wi. waaw xam nga ministère de l'intérieur moom ministère bu mag la ministère la boo xamante ne bu si dafa gën a technique par rapport ak yeneen ministère yi wala comme ministère bi ñu jógee muy ministère industrie et des mines donc am na un peu différence mais teewul euh, li am solo mooy euh, xam nga nekk ci nit ñi tout le temps baax na trop mais nekk ci nit ñi tout le temps te bu ñu la laajoon njëgu ordonnance mi doo ko mën a régler su yàggee da leen di tànqal nga sori leen sax moo leen di gënal ñu mën a am air air pour noyyi est-ce que donc am na solo mu jege nit ñi loolu am na solo ci moom am na solo ci nit ñi bu ko possibilité yi mayee mais jege nit ñi du du tout le temps chaque weekend mu nekk fa déedéet. wax naa la ñun ñoo ngi si biir cabinet mais fii chaque jour laa la wax ne lu ñuy recevoir ci ay doléances lu muy réglé ci cas yu jógee Jolof loolu bu nekkoon euh, nekk jege leen nekk fa tout le temps ak bañ fa nekk tout le temps mais teewul ma nga fa. parce que loo loxoom jógewul foofu donc ñun ñi ànd ak moom aussi membre dëkk bi nii ak yeneen responsable yi nga xamante ne aussi ñu ngi foofu doon ànd ak moom di liggéey depuis au début ba léegi donc responsable yi ñu ngi ngi fa sur la base di liggéey di di dem ci nit ñi ñun chaque weekend bu ñu demul bu ñu tëbale benn weekend beneen weekend bi dañuy dem ñi nekk foofu aussi ñu ngi koy def ñu ngi def liggéey boobu moom temps en yaa ngi yaa ngi gis mu dem muy muy dem Jolof donc nekk ministère de l'intérieur mu dem Jolof waaw chaque jour yaa ngi gis euh, mu am ay yu xew foofu mu dem fa donc euh, jàpp naa nag peut-être ministère bi moom laajul yenn yenn activité yi comme ni mu meloon euh, bi muy nekk industrie et des mines mais teewul tout temps yaa ngi koy gis muy dem Jolof di coordonné ak doomu Jolof yi aussi responsable yi fa nekk aussi ñu ngi dem sur la base liggéey ñun ñi fi nekk ci cabinet aussi tout temps yaa ngi gis ñoo ngi dem moom it saa bu yàlla may jot rek mu dem te lu mu mën nag pour nit ñi moom mu ngi koy def loolu moom mu nekk fii ak nekk Jolof moo si yem parce que chaque jour moom li muy envoyé ci kenn xamoon lu mu toll pour régler situation doomu Jolof yi. gis nañ fa ay yenn nomination yoo xam ne def na ko fa muy chargé de mission ku si mel ni ci Ousseynou Ndiaye ak Jamil Sow est-ce que loolu mun nga ñu see ñëwal tuuti rek maanaam rôle ban rôle la ñooñu di war a ji waaw rôle rôle chargé de mission yi bëri na bëri bëri na loolu nag euh, chargé de mission yi ministre bi moom moo xam kenn ku nekk aussi yan mission la lay chargé jeexal na chargé de mission la ñuy wax loolu ci moom la dépendre kenn ku nekk si moom euh, lu la bëgg a chargé moom moo ko xam. Euh, donc euh, vraiment loolu en tout cas ñoo ngi apprécier bu baax nomination boobu parce que ay doomu Jolof lañ te nit ñi loo xamante aussi jàpp nañ ni mérité nañu post yooyu bu baax ndax euh, bu dee ci liggéey yàgg nañ ko liggéeyal liggéey boobu bu dee ci wàllu xam-xam ak aussi ak représenté ko moom it dignement aussi loolu jàpp naa ne ñoom mën nañ ko donc moom mi leen tànn tamit euh, am na confiance ci ñoom am na aussi considération boo xamante ne am na digganteem ak ñoom donc su leen tànnee euh, du def lu dul apprécier ko. te tamit bëgg nañu sax mu tànnaat ñeneen parce que euh, responsabilité yi mu war a jël jolof ba léegi jàpp naa ne pour man euh, war na sax dolli parce que jolof rek moo ci bénéficié wu. d'accord gis nañ fa ay taxi jaune yoo xam ne euh, si weewu béy nee nañ ministre bi moom moo koy def yow itam si festival bi passé gis nañ ne formé nga ay dawalkat yi Jakarta pour si wàllu code fan lañ war a jaar ak aussi itam jàppale leen lu mel noonu bas est-ce que mën nga ñu see ñëw tuuti. waaw xam nga euh, le ministre Aly Ngouille moom boo xoolee ci secteur boo jël rek def na fa résultat durant cinq ans yi ñu nekk nii yi rek ci mandat bi secteur boo jël jël rek mun naa la wax na def na fa résultat yoo xamante ne depuis 1960 ba léegi ñu fa jaar kenn jéem ko sax koy def leer laa la wax boo jël rek muy culture muy sport muy santé domaine boo jël rek laa la wax côté social surtout li fa def domaine boo jël rek ministre bi def na fa loo xamante ne vraiment jàpp naa ne ñi ko jiitu amul kenn ku ko jéem donc loolu nag dañ ci sant yàlla bu baax tey bu ñëwee innové indi tey ay taxi daf ko ci waxuma la sax euh, njëriñ bi taxi yi am rek ci ñi nga xamante ne daan nañ bëgg a dem te mënuñu am oto yu leen yóbbu waxuma la rek njëriñ bi mu am créer emploi ci jeunes yi nga xamante ñu doon toog nekk ay chauffeur demoon jàngi ba am seen permis mënuñu toog seen kër mënuñu am liggéey mu jël leen ci taxi yooyu Euh, waxuma rek tamit ci côté économique lu muy dugal comme euh, chaque jour li ñuy jël ci ay carburant chaque jour taxi yi ñu war a fay tout mais euh, image bi rek image bi kese def dafa rafet ci Jolof image bi kese rek ñu wane ko tey daara rek ñu ngi gis taxi jaune noir yi loolu rek dafa rafet ci dëkk parce que tamit dëkk loo daf ci am solo trop loolu rek man def dafa man neex man en tant que doomu Jolof image yi rek vraiment neex na ma Eh, trop te lolu lu nak xel ak xalat ak am moy ñi ko def mom mo koy def te lolu nak yalla may na ko ci ali euh bëgg na jolof trop trop te bëgg na doomu jolof yi te mu ngi def lu mu mën nak pour jappalé doomu jolof yi japp na ne li moy projet yi gëna ndaw timit yi nga Ali préparé nako pour Jolof vraiment y' a pas mal de projet yo xamante ne ñu ngi fi te bientôt aussi ci bërni ni dinañ ko gis. sa diggante yow Bassirou Ka ak responsable yi nekk ci département bi est-ce que tax na bu baax. waaw man moom ku ma xam-xam ne man jàpp naa ne bi ma jógee ba léegi man mosuma def politique ci Aliou Ngouille moo ma defaloo politique wax dëgg yàlla. ci moom laa commencé def politique ci moom laa xamee sax carte parti na la mel mosuma sax xam carte parti mosuma toog réunion euh, politique mosuma wax ci meeting mosuma organiser benn meeting ci Aliou Ngouille laa commencé def loolu vraiment. ci mouvement pour la renaissance du bi mu indi woon mu nekkoon nag euh, aussi lu ñu neex ñun ñëpp ñu adhéré aussi comme ni ma la ko waxee ci début bi euh, loolu moo tax man xawma keneen ku dul man ci moom rek la adhéré vraiment moom lay liggéeyal bokk naa ci ñu gën a fidèle ci moom wax dëgg yàlla te loolu tamit man xam naa sama bopp dama dégg ci ci ci ni may liggéeyee donc euh, jàpp naa ne képp koo xamante nag ci responsable yi moom juboo ak Aly Ngouille rek mun mun naa wax ne man juboowu ñaa man mun naa considérer loolu vraiment parce que parce que ku ko bañ mënoo ma bëgg loolu moom lu leer la waaw ku ko bëgg it mënoo ma bañ loolu tamit lu ma lu ma leer la parce que tamit yàlla daf ñoo boole boole boo xamante ne tey dafa série ma bokk ci ñu gën a fidèle ci moom ma bokk aussi ñu ko gën a jege ñu koy gën a jàppale donc jàpp naa ne mënuma ne sama diggante ak responsable yëpp neex na waaye tamit euh, mënuma wax ne sama diggante ak responsable yëpp neexul parce que vraiment aw ma ci problème personnel ak kenn si ñoom ku ci nekk rek am na ñu ku ci nekk si ñoom rek man mun naa la wax ne jàmm moo tax sama diggante ak mais nag ñu am na ñu ma ci mere parce que maa ngi ci côté ministre bi maa ngi liggéey ak moom et cetera loolu moom ñooñu mën naa leen comprendre loolu moom vraiment euh, loolu moom am na. waaw am na si ñoo xamante ne wax dëgg yàlla. Euh, jubóowuñu ak aal yi jubóo bi ñu la moom aussi maanaam dañ ma ci boole te loolu tamit mun naa comprendre te lu ma neex la aussi ah vraiment. muy ay kàddoom Bassirou Ka ma leen di fàttali ne tey moom mooy suñu kan seen émission la lumière de jour monsieur Ka en tant que euh, politicien ndax 2019 bi ñëw res candidat nga si commune bu Daara Jolof. waa xam na mbiru yàlla moom dafa yéeme d' ma euh, man li nekk euh, ambition bi ma am hmm, pour le moment. mooy fexe boo jàppale doomu Jolof yi ci projet yi nga xamante ne man am naa ko euh, muy ci projet culturel yu may organiser foofu muy ci activité de développement yu may indi foofu ak ci côté formation yi nga wax li sànq ak yu mel noonu former jeunes yi ci ci wàllu sécurité routière former jeunes yi ci wàllu sensibilisation pour nekk ay relais former jeunes formation gestion entrepreneuriat former jeunes extra domaine yu donc man euh, ambition def ci ndaw ñi def ci euh, ñi aussi ci ci ay financement projet donc suma ambition fexe le monsieur le ministre à Ndiaye doomu yi réellement kan bo jollof timit gëna a wu ci mom euh, à travers aussi projet yi nga xamanteni amna ko pour doomu jollof yi à travers aussi vision politique bi nga xamanteni amna ko pour le département de Linguère à travers aussi patriotisme bi nga xamanteni amna na ko ci département de Linguère donc jollof mëna a wu ci mom ñu baña a euh, ñu baña comme ni mako waxé sank ñu baña bu jaan bi bu ñuy door ci watit bi fexé bo door jaan bi fekk mu ngi sur place donc loolu laa bëgg nit ñi xam kan mooy Aly Ngouille Ndiaye bu baax a baax boo ñu njëriñu ci moom vraiment ci période bi nga xamante ne euh, Jolof soxla na bu baax nag euh, ay projet yu mag yoo xamante ne doomu Jolof yi euh, war nañ ci mën a bénéficier wu muy jeunes yi muy jigéen ñi muy góor ñi muy ndaw ñi muy muy mag ñi vraiment man sama ambition d'abord pour le moment fexe ba jàppale le ministre jàppale doomu Jolof yi ba président Macky Sall am deuxième mandat d'abord donc loolu mooy sama ambition pour le moment mais tay population bu taxawé né basirou yow lañ bëgg nga nek candidat commune bu dara da nga leen di rejeter wala da ngay and ak ñom non mënuma mënuma rejeter mënuma rejeter demande bo xamantene population bi mom moko def parce que aussi mom mom sama bop 100 donc cent eh, wax naa la suma ma génnee jolof c' est juste pour outil xam-xam ak alal te lu ma ci amit dama koy delloo ci doomu jolof yi donc doomu jolof yi buñ ñu soxlaa moom mënuma bañ loolu mais jotagul lu ma la bëgg expliquer jotagul pour le moment lu jot mooy. fexe ba jàppale leen ci wàllu formation fexe ba jàppale leen ci wàllu innovation fexe aussi ba promouvoir dëkk bi fexe boo valoriser aussi culture Jolof fexe ba vraiment ba doomu Jolof yi aussi xam réellement kan mooy le ministre Aly Ndiaye fexe ba doomu Jolof yi aussi euh, euh, jàppale président Macky Sall pour que mu am deuxième mandat maintenant bu ñu paree ci loolu li nekk ci kanam moom yàlla rek moom moo moom moo xam suba lépp lu loo xamante ne aussi war nañ ko jot wala peuple bi soxla nañ si ñun aussi ñun doomu daara lañ donc jàpp nañ ni loolu weesuwul. d'accord euh, li ñu des si waxtu bëreetul daanaka émission bi jeex na tey euh, monsieur Ka euh, le président de la république muy Macky Sall ñu bëri nee nañ dina am deuxième mandat bi si biir Jolof ndax am nga yaakaar ne la ngeen fa def seen campagne dina yomb. waxuma la sax la fa président def mais le fa ministre bi def rek doy na sëkk campagne pour ñun c'est-à-dire il faut il faut loolu tamit mu leer sérieusement la wax ne waxuma rek président.

rawatina nag président wax na li mu fa def loo xamante ne depuis 1960 euh, ba léegi amul benn président boo xamante ne defal na ko doomu Jolof yi donc ñun jàpp naa ne waxuma la sax euh, euh, éliraat président Macky Sall pour mu am deuxième mandat mais man dama jàpp ne doomu Jolof yi tey lu ñu xaar ci man lu may xaar ci ñoom mooy fexe ba Jolof tey Euh, ci résultat yi bu génnee premier tour yi président Macky Sall bu gagné na fekk Jolof moo jël pay ci ci région yi am ci Sénégal gi yëpp Jolof dafa war a raw parce que considération bi président am si ñun confiance ak considération bi mu am si suñu doom muy le ministre Aly Ngouille Ndiaye confiance bi mu am ci moom ak yenn responsable yu mu fa jël boo jëlee ay directeur boo jëlee ay PCA donc poste boo jël rek président cëral nañu si cër boo xamante ne mun naa ne def ñoo sax beral loxo donc ñu nit bu fekkente ne loolu gis nañ ko dañ ko war a delloo njukkal donc 2009 man lu may xaar ci doomu Jolof yi vraiment ñu delloo njukkal euh, président Macky Sall à travers aussi confiance ak considération bi nga xamante am na ko suñu doom bi mooy loo ministre Aly Ngouille Ndiaye ak réalisation yu mag yi nga xamante aussi ministre bi def na ko foofu ñu delloo ko euh, confiance boobu ñëw na ko si doomu Jolof yi vraiment gis nañ li nga defal suñu doom bi boo tax na euh, résultat yi bu génnee ñu ñu jël pay man loolu laa loolu laa xaar ci doomu Jolof yi waaye gagné mom japp na né euh, lu luñu luñu gëm la lu wara am la parce que liggéey nañ fi liggéey bobu vraiment. est ce que mën nga ñëw ñëwal bu baax ci li nga xam mom moy euh, mouvement ànd dooleel bashir bi lan mo waral ngeen créer ko tay wala jërëjëf euh, DJ Mag mouvement ànd dooleel Bassirou mun na wax né ay jeunes yi nekk ci sama quartier ñom ñoko xalaat ñoko créer maintenant lutax ñu créer ko ci luñ ma wax moy gis nañu taxaway bi nga xamanteni amna aussi amna ko ci quartier bi ma bok si ñom gis nañu aussi euh, considération ak sama digënté ak le ministre Aliou Ndiaye fi ma tek gis nañ ma bok si ñom ñu nek ay jeunes ñu né pourquoi pas aussi ñu créer ben mouvement politique pour accompagner ma jàppale ma ci biir euh, dëkk bi daara donc mu commencé nak ci sama quartier di angal islam donc euh, fo le mouvement bi commencé biñ ko defee rek ma ma d'accord ak ñoom euh, pour que vraiment ñu ñu liggéey si maintenant ci lañ ko élargir fexe nañ tey bo quartier yu bëri yi nekk tey ci biir daara euh, adhéré wu nañ si biir mouvement bi tey donc euh, bi ñu paree ci loolu li ñu xool mooy ci askan wi yenn problème yi nga xamante ni am na fa surtout ci suñu quartier bi foofu mooy dangay gis nit ñoo xamante ñu dem ba mag li ñu yor sax extrait de naissance ñu ne léegi nañu recensé quartier bi ñu xool ñi nga xamante ne vraiment ñu ngi fii te di jàng amuñu extrait de naissance wala jànguñu am nañu âge bi ñu war amee extrait de naissance amuñu ko ñu jëm leen a euh, dajale bi ñu defee loolu def nañ presque xool nañ ba am plus de trois cent dix-sept personnes yoo xamante ne jàpp nañ ni ñi euh, mosuñu am extrait de naissance te war nañu am extrait ñu bind leen. fexe nag topp procédure bi fexe ba 217 yi moom jot nañ actuellement seen extrait de naissance sans euh, yi lañ nekkoon di di defar donc bi ñu paree ci loolu aussi ñu ñu ne léegi nañu organiser benn panel de sensibilisation panel boobu aussi biñ ko organiser mu nekkoon lu am solo mu nekkoon panel bu riche nit ñi jóge woon fu nekk ñëw fekkee ko ci biir quartier yi te ñu defoon thème bi panel bi lan la woon mooy fexe ba yi lan place ci plan Sénégal émergent ban place la am ci biir plan Sénégal émergent ci biir loolu aussi comme euh, conférencier ñëw ci def aussi ay projection ci réalisation ministre Ndiaye yi mu def yi ma doon wax sànq ba léegi def nañ ko fa wan nit ñi parce que tamit euh, wax rek mun naa ne dafa xaw a yomb ku nekk mun naa taxaw wax ne def naa li def naa lii waaye wan leen image wan leen nag réalisation yi nga xamante aussi le ministre def na ko ci département bi ñëpp teg seen bët euh, beneen bi ñu wanewaat aussi ay réalisation yoo def na ko tamit ci biir département de Linguère ñëpp teg seen bët li amatul amatul werante donc loolu mooy li nga xamante ne def nañ ko defaat tamit euh, beneen projection ci carte d'identité yi wax nit ñi importance bi mu am bu fexe ba nit ñi jóg bindu ci loolu timit def nañ ko ci mooy dernière activité bi nga xamante ni mouvement bi def na ko mu nekkoon benn panel euh, bu am solo ñu doon sensibiliser population bi donc bi ñu jógee ci loolu tamit booba léegi vraiment ñoo ngi organiser ay activité boo jàpp naa ne bientôt sax euh, ñu war a dem jolo am na ay ralliement yoo xamante ne aussi ñu ngi koy xaar. bu waxtu bi jeex na takk tey mu nekk Bassirou Ka nekk attaché cabinet ministre de l' intérieur mais aussi nekk directeur Daara FM nekk aussi administrateur site boobu ñooy seen vision point com ak Jolof TV euh, nekk aussi euh, coordinateur Jolof suñu culture ak ànd dooleel Bassirou tey jii nii nag mu nekkoon suñu gan seen émission la lumière du jour monsieur Ka noo gisee la lumière du jour tey mu ñëw dalal la ci bi nga ne euh, yàkkamti woon nañ nga ñëw si ndax nag ñu bëri ñu ngi la si doon xaar si li nga xam ne yaa ngi koy def si wàllu réalisation ak leneen ak leneen. waaw xam naa ne émission bu bu mag la bu riche la vraiment wax naa la yenn saa yi temps bi du ma may ma déglu ko benn jour ma lay woo di la ko wax mais su ma toogee tuuti am temps rek su ma ko déglu automatiquement dama lay woo parce que damay apprécier bu baax damay gis qualité bi émission bi am. damay gis aussi qualité personnage ak personnes yi ngay xamante ne aussi yaa ngi leen di invité ñu jàll ci ci ci émission bi vraiment ay nit ñu riche ñoom gis naa leen ñu jaar fi gis naa fi monsieur le maire Mawa gis naa fi ay maire yu bëri gis naa jóge ba Ziguinchor gis naa bu côté Fatick zone yëpp presque maa ngi gis partout vraiment ngay am invité yoo xamante ne nit ñu amaan na xaaruñu la woon ci ci ci émission bi donc qui rek ci doomu daara wala doomu mais ngi gis vraiment variété aussi lu am solo donc émission la lumière du jour mon naa mais leeral aussi dafa am solo lumière du jour dafa daj euh, Sénégal gi parce que maa ngi vraiment yaa ngi donc émission bu mag la bu riche la boo ngi lay bu baax continuer ci euh, vraiment jàpp nañ ne yaa ngi def liggéey bu am solo site bi tey ni ñu bëri ñu ngi koy suivre aussi à travers émission bi nga xamante ni yow yaa koy animé. jërëgeen jëf mbokk yi ñu doon bàyyee xel vision si www.senevision.com tey jii nii Bassirou Ka moom moo nekkoon suñu gan dégg ngeen ko si ay kàddoom leeral na lu bëree bëri si li nga xam ne moom mooy wàllu culture ci wàllu développement responsable politique bu mu nekk si commune bu Daara Jolof nekk aussi attaché cabinet ministre bi ñu ngi koy sant di koy gërëm di gërëm ñi nga xam ne aussi yéen ak ñuy déglu nekk leen di jox encore ak beneen numéro ak beneen kilifa ak beneen bopp jërë ngeen jëf seen vision point com gërëm na leen.